asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yéen mbokki jullit ñi yéen mbokki taalibe yéen ñi nga xam ne nii yéen a ngi nekk Touba Argentine euh, TV di ko seetaan di ko safoo del si nañu fii ci Touba ci Madiana ci safaru taximaan yi mm, cant goo xam ne ni dañ koy def ñu kam ñu tàmbalee ko woon waaye biñ ko tàmbalee ba léegi nag euh, seen bii nii boo xoolee tàmbale ba ak léegi am na ay jéego yu rëy yu ci am loolu nag euh, la koy firnde la sëñ euh, Touba doon def képp koo xam ne da ngaa jaayante na nga jaayante bu dee dëgg rek tànki kanam ya ngay am muy euh, baatum alxuraan bi nga xam ne nii moom la maam Cheikh Ibrahima Fall daal indi di ko doxee bépp ko képp koo xam ne nii da ngaa tënku ci yoon woowu rek muy Babul din maanaam ci bunt booba ngay jaar. ba nga xam ne ni da ngay mën a àgg ci biir muy hal adullukum ala tijaratin tunjikum tuminuna billahi wal yawmil akhir wa tujahidun fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusihim nga xam ne ni kon foofu la maam Cheikh Ibrahima Fall tegu woon kon taalibe yëpp ñi ngi tege foofu nga xam ne ni bu cant gi ñëwee ñoom dañuy jël seen jëmm ak seen alal ak seen lépp def ko ci biir te boole ko di sant Serigne Touba bu baax a baax seen xol sedd ci guy ñu kontaan ci ànd ceeg loo xam ne nii maanaam duñ ci jéem a def benn eh, yeexamtal lu dul jël seen jëmm lépp rek pour euh, sëñ Touba tax kon dañuy ubbi euh, waxtaan bi nga xam ne nii lii nga xam ne nii moo waral euh, cant gi fi mu tàmbalee ki ñuy njëkk a jox dañuy jox sëñ sëñ Modou sekk Diop jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ñoo ngi ziar bu baax mbokk ñu set ci bis bi di leen balaax ci di leen balaax ci dérangement bi waaw ñu ngi santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur sant Serigne Touba baax a baax waaw dëgg la li nga def nii rafetlu nañ ko lool parce que garage bi yàlla daa dogal ñu doonoon ay ndaw ñoo fekk fi suñu ay magi taalibe yu baax yoo xam ni ci liggéeyal Serigne Touba rek lañ leen fekkee ci doxinu sëriñ Touba rek la leen fekkee ñu sos daayira boo xam ne sin si bi ñuy ñëw ab ngont lañ ko commencé woon bi ñu ko commencé woon am ngont nag Serigne Mara Seck moo ñu ko doon jàngal ban ko commencé ñuy di ci dem di dem di ci dem ba suñu borom dogal mu agsi fii yàlla dogal ñu doon ay ndaw nag topp seen ginnaaw di ànd ak ñoom di liggéey ñuy ay mag yu baax teete ñu tee ñu yar ñu yiir ñu ba suñ borom doxal tey ñu doon jëwriñ ji ñuy jégluwaat ci seen kanam bu baax di toroxluwaat ci seen kanam bu baax di jaajuwaat bu baax fas yéene liggéey nag Serigne Touba rek lépp lu ñu am Serigne Touba rek tax ñu ñu ci nekk parce que mënuñu koo fay nag mais dañ topp jéem a jéem topp suñ tànki waajur topp suñ tànki kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fi fekk parce que loolu lañ leen xamee loolu lañ nekk loolu lañ leen yox ñuy jaajawaati nag doon ay xale yoo xamante ne si maanaam bis bi képp koo xamante si taxaw la ngañ ci jàppale ngañ ci ñu lay ñaanal ngi Serigne Touba yàlla yàlla Serigne Touba Serigne Touba jàppale la fajle sa aajo parce que ay xale lan ay ndaw lan mag ñun fi fekk téye nañ ko ban ak si fii kon ñun dañoo ñaan yàlla mu avancé ba ñeneen ñu ñu fi fekkit mu gën a avancé ñu sant Serigne Touba parce que amuñu lu dul sant Serigne Touba te lépp lu maanaam sant Serigne Touba moo ñu ko gënal kon nag ñu ngi leen defal seen teewaay ak bis bi ngeen ñëw fekk ñu fi ñu ci ànd yéen bu baax. asalaamaaleykum mooy euh, maanaam bi ngeen àndee euh, bi ngeen bi ngeen àndee. yéen euh, chauffeur taximan yi ngeen organiser bés bii. ndax mos ngeen cee am jafe-jafe ci wàllu ngeen kii jaar nii jaar ne ci ànd bi ngeen di ànd pour war a taxawal bés bu bés bi jàllee ngeen war a xaaraat pour déwén pour taxawal ko ndax ci diggante bi dina am jafe-jafe. dëgg la rafet naa laa moom laa la wax ne la bi ñuy ñëw ñun ay tout tànk lan suñuy morom mi bàyyi ak suñuy mag lañ fi fekk ñu takku doo booloo doon benn sos daayira Serigne Touba boo xam ne ak ngont lañ ko commencé woon yoonu Serigne Touba liñ ci wax ne day jëm kanam du jëm ci ginnaaw ñun ay xale lañ mais am na luñ xam ngont min ko commencé woon dañ ko commencé woon avant bi tas na te déwén sa daal continué fanaan boobaak léegi nag tant mi ngi nii day gën di jëm kanam rek wax dëgg yàlla mag lañ yoo xam ne teete nañ ñu téye na ñu mosu ñoo am ak ñu benn problème wàllu cant gi bu xësee ñëw kenn ku ci nekk loo jàppoon bàyyi nga ko si alal sa oto sa doole sa xam-xam sa lépp danga nga koy def ci bis ba mu jeex tàkk te boole ko ay jooy yu métti ngir lan ngir xeeb jëf ji nga ci def ak sa poos bi nga ci def ak sa alal ji ngi ci def ak ñaan yàlla ëllëg mu gën a yokk nga gën ko jëmale ndax parce que sëñ Tuubaa rek leen am moom rek leen yaakaar moom rek leen wóolu. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe di kenn ku nekk maa ngi lay nuyu te di la siyaara te di la bala àq te di la Euh, te bëgg euh, wax tuuti rek ay kàddu yoo xam si euh, sunu mbokk yi fi teew xañ ne dañ fay ñëw bëgg leeral askanu liñ ci waral nag mooy cant gi la ñuy wax ni mu demee ndax ki jiitu daanaka wax na lépp cant gi ay taalibe leen ay sëfoor yi taxi ubbi sunu daayira tudde ko nooru daare ni taximaani Serigne Touba yi loolu ci lan moo fondement bis bi waaye yaral dogal ban ko commencé ci 6 heures lañ ko njëkk a def avant 10 tas na ñu delloo dajawaat waxtaan ci suñ biir na ñun daal Serigne Touba mi ñuy sant day day yokk waaye du wàññeeku ñu dajawaat ci déwén ci waxtaan ja ñu ne kon day fanaan fanaan googu ban ko defee ba léegi ren moo ci sixième audition boo xam si juróom benn at ba juróom-ñaar at ñu koy def booba ba léegi day fanaan di yendu fanaan bu ñu xëyee dana ubbee alxuraanul karim du def ay durus xasaayit euh, def ay bernde bu ngoon jotee euh, jàngkati xasaat yi fanaane jàng ba bët set ñu yeewi nit ñi ñaanalante ba déwén ak jàmm. moo fi lu waxoon si lu lu lu tënku la loolu nag li ci des la koy dolli ko rek mooy gis ngeen ko commencé nañ ko ren jii ndax suba la alxames di le 26 incha allahu nan ko daan defee rek lañ koy defee buñ ci xëyee ubbi alxuraan salaatu ala nabi jàng xasida jàngkat yi continuer ndax daayira bi nekk na daayira boo xam ni léeg-léeg ngeen dajale dara yóbbu euh, da ngeen ko dajale pour sant wala. waaw loolu boo ma ci laaj dinaa sawar ci ci ci tontu la ndax euh, daayira bi euh, yàgg nañ cee siyaare daaw bi nga xam ne si Cheikh Sidi Moukhtar mi ngi fi dañoo jël fii sunuy oto def délégation dem fekk ko daar Muxti muy ñu siyaare ko mu ñaanal ñu ñu daal di ñëw door a cant. ren jii bi nga xam ne si yàlla dogal na sant gi jub si na dañoo jàpp bisub siyaare def délégation bu takku dem seq fekki sëñ Muntaxa Mbàkke ibn sëñ Basiiru siyaare ko mu ñaanal ñu ñaaxaat ñu nangul ñu sunub siyaara ñu jóge fa jàll fa sëñ Aboo Say muy doomi sëñ soxoy sëñ Seex Say borom pàkk bi mooy mu ñaanal ñu ñaax ñu muy bërkaati démb foofu loolu lépp def na ko avant ñuy def lii kon loolu siyaar boobu moom boo ci laajee dama koy dama koy dama ciy sawar ci tontu lool lool lool lool lool. waaw léegi taximaan yi ndax eh, ci Madiyana rek la yem wala ndax yaatu na wala. maanaam taximaan yi bu ñu ko waxee maanaam garage bi moom. mooy nooru daare ni taximaan yi Serigne Touba waaye yaatu na ci Touba. ndax boo génnoon fii rek wala ngaa ko nit di nga ci ab garage. garage booba ñoom it dañ fiy nekk di liggéeyal sëñ Touba ñoom ñun ñoom ñoo ko ànd waaye nag fii moom ñoo ko fondement ñoo koy liggéey ñoo koy ñooy ñooy ñooy def loolu. kenn ci ñu ci fekk si tamit ñu ànd kook yow waaye fii mooy mooy mooy mooy mooy bopp bi mooy mooy mooy mooy kër gi daal ni ma la ko mën a waxee. waaw jërëjëf kooku moom ki doon wax sànq mooy Serigne moor fay moo wax euh, sëriñ Serigne Serigne Balla Sylla moo doon wax euh, kàddu yu am solo yooyu nga xam ne nii kon la woykat ba doon wax naan walam tabnul ula mutafarriqin mun leen tabax dara kaw ba mu kawee fekk da ngeen a tàqalikoo kon ñoom ñëpp dañoo nos seen lépp mu nekk benn. Euh, sunu borom daal waxaat ca suuratu Ali Imran ca jeexal ba daal ne yaa ayyuhal amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha laallakum tuflihun kon ragal yàlla googu kalal nga xam ne nii Serigne Touba chaque jour ci loolu lay joxoñ nit ñi pour ñu jëm ca kon foofa la tegu woon muy yaa ayyuha sibyaanu la tastaxilu anil huda wa bil ulumi istailu fastailu bi hizzi wa tilawa tani bu majalis saqawa kon loolu mooy mën a tax nga mën am ragu ragal yàlla kon dañuy jël kàddu gi jox Serigne Mor Faye waaye itam di rafetlu liggéey bi bu baax a baax di yëkkati sunu kàddu rek te lottu ci lool waaye suñu doom dogal place bi ñu nekk eh, jëwriñ ji di Serigne Modou Seck tànn ñu def ñu ñu yor kàddu mbooloo mi ñu xeebu ci lool di ñaan suñu borom mu kattan nañ ñu te dëgëral ñu ba lépp lu luñ soxla ci ñun ñu mën koo defee ni mu ko waree. comme ni ko jëwriñ yi fi jaar waxee bis bi bis la boo xam ne eh, bis la boo xam ne dañ ciy sant Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba waaye bis bi itam bari ay ngëneel yu bari yoo xam ne dafa da koo làmboo ndax doomu aadama lépp loo xam ne yaa ngi ko yëkkati ci àddina di ko def rek war nga ko teg ci li tubaab di wax ay yoo xam ne di nga xam li ngay def fi nga ko teg fan la bis bi nag ñu ko teg ci Euh, sant Serigne Touba Cheikhul Khadim waaye ne ko teg ci dundal sunna Seydina Muhammad waaye itam ñu ko teg ci ñaanal way daw li nga xam ne dañoo bokkoon ak ñoom liggéey bi te yàlla suñu borom subhanahu wa taala dogal ñu jiitu juñu moo waral bu ñu xëyee ci bis bi dañuy jàng durus xasida buñ ci noppee def ay salaatu ala loolu itam sabab bi mooy dañu fas yéene ñaanal mboolem way daw yi nga xam ne ña nga ca barzaq yàlla na suñu borom yërëm leen te jéggal leen xaare leen àjjana waaye rawatina ñi ñu bokk leen liggéey bi di njabootuk oto te gisatuñu leen te elaakulaan dañ leen moo waral sababu jàngu alxuraan bi ak durus xasaay bi ak ala salaatu laana bi boobu ginnaaw bu ñu jógee ci loolu itam da ngay xam ne képp ku dajale ay murit wax ndaje murit da nga wax bernde kon ginnaaw bu ñu jógee ci dursu alxuraan boobu ak xasaayid ak salaatu ala nabi dañuy dellu ci kër yi daal bernde ba 16h30 ñu dellu si ci bâche bi doxal li nga xam ne moom la yàlla dénk pàkk bi tey ak ñi nga xam ne ñoom lañ dara jaalee bis bi ginnaaw bu programme boobu génnee tamit ñu jàll ci cérémonie officielle boobu dañuy dellu xéewlu daal di waaj nag def sañse yi ñëw ci baas bi xam nga ne Serigne Gana Messere Mokhtar moom Serigne Touba moom la ñuy àndal mu waxtaanee kan mooy Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul waaye moom tamit mu waxtaanee lan mooy yoonu murid ginnaaw Serigne Gana Messere itam dañuy dalal sunu xarit sunu wëllëre Serigne Khadim Kebe jàngkat bu mag ñu ànd ak moom ba deux ba trois heures matin ñu jox Serigne Mara Seck kàddu gi moom mi nga xam ne bis bi bañ koy door di tàngal kafe di da takk benn rajo opérateur la ko doon ànd ak ñun ba suñu borom dogal tey ñuy tant tant bu toll nii di daaneel ay nag kon Serigne Mara Seck moom itam dañu ànd ak moom ci kóllëre ginnaaw lay féete ndax mosuñoo rëddal wenn sas kon bis bi ak fu mu a dem ak fu ñu mën a toll ci àdduna muy muy dund ñuy dund dañ koy ànd moom Serigne Mara Seck mi nga xam moom la fi yàlla teg tey muy ab tuut tànkit xëy na pas-pasam ak da ak góorgóorloo moo ko indi fii ndax suñuy bàyyi ñoo yoroon garas bi ak suñu kilifa te ñu ngi ñuy ànd ak ñun liggéey bi ba tey seetaanuñ dara barki démb ñëw waaye fekk na lépp jàkk ci teewaayu Serigne Balla Sylla ñoom Serigne Abibou Lay Serigne Bada Fall Serigne Baye Alla Diaw Serigne Mbaye Jong ñoom ñëpp ñu ngi taxaw téye ci bis bi ba mu yegg ànd ak ñoom ci liggéey bi ñun ñëpp ñu maase ànd ci liggéey bi kon mën nañ ne loolu mooy sababu bis bi bis bi yàlla dañ ko teg ci sunna Seydina Muhammad waaye teg ko ci delloo njukkal Serigne Touba Serigne Touba nag tax ñu koy delloo njukkal mooy dafa wax ne lil Mustafa wa bihi kenn ñi mu ko woon a yëkkati Sëriñ Tuubaa yëkkati ko ba pare wëlbati ko ñëwaat nag wax ne wallaahu yanzuru nii wal xalqu tatbaw nii fil barri wal bahri saa nafin bi laa darrin kaa leen fii fi man maay yóor waay bi maay raw waay bi maay laq waay bi maay njëriñ andu taki lor ginnaaw Sëriñ Tuubaa day jëriñ te du lor nag ñun taximaani Sëriñ Tuubaa yi di nooru daa réeni ñu yëg teraanga ji ñu Sëriñ Tuubaa defal sentir ko te lott ci fay ko moo tax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ngeen jëf kooku nga xam ne ni wax na wax ju am importance ji muy sëñ Mor maanaam euh, Serigne Touba Serigne Touba day àdduna ndax soo xoolee li tax mu nekk àdduna mooy euh, xasida gi nga xam ne daf ko mujj bind rek muy xaatimatul munajaat Euh, dafay wane ne li nga xam ne ni mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi biir Touba na kataballahu tabaraka wa taala anna baytullahi alharam tarfaul malaik ila Touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu nekk loo xam ne ni lu wér la Touba nag dafa am zahir yeen am baatin yeen ndaxte baatin yeen bi mooy ab murit mu nekk fa la Touba waaye tamit ci biir Touba tamit yàlla daf ko wormaal ba nga xam ne nii maanaam saa boo nekkee ci biir Touba noo fi nekk rek sunu borom fayee la ko noona kon ñi nga xam ne nii dara itteelu leen lu dul liggéeyal Sëriñ Touba kon jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu yéen mbokki julli yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taaliba yi yéen mbokki dëkkandoo yi ñun ñëpp ñu ngi leen ñëpp ñu ngi leen nuyu si kenn ku ci turam ak santam di leen sant di leen gërëm te di leen jéglu tey ñaan sëriñ euh, Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loor te wér te wér nu yàgg fi ginnaawam ah lii daal kàddu yi dafa mënul gudd ndax dama bariwul lu may wax ci rajo euh, maanaam daal lii sant la te yàlla moo ne ku sant ma dolli la kon alhamdulilah ala kulli haalin bu nu amee lu kenn amul dana war a sant di continuer li sëriñ tubaa di wax ne laa xaadallaahu maa lam yakuni wala yakunu habadan li mumkin ni bu fekkee sëriñ tubaa dalaa baaxeental bayit ko lu am kenn amul mooy lii ndax taxman yi bari na te kenn ku fi am guddi gu toll nii di ko sant sëriñ tubaa dégguma ko fenn suuf ci dëkk bi kon alhamdulilahi rabbil alamin jagam suñu borom baaxa nanu lii kon lii mooy wax tasimu bi abdillahi jamian wala tafarraxu bi mu wax ci alquran mooy booloo te jàppoo ci buumug yàlla gi te bañ a taqalikoo mooy lii ñu ngi ñaan ci kàttanu yàlla bi jaay Seydina Muhammad Bakk Seexul Xadim lii daal yàlla defal na ci saadatu daare nii comme nooru daare ni jiinu sunu daare bi tudd yàlla defal na ko ci defal na ci wal xawna wa tawfiq wal usul bi jaay sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mooy li nga xam ne nii mooy woote euh, euh, euh, Touba Madiyana garage taxi man yi waaw ngeen xam ne nag loolu kon sëñ Touba dafa am lu mu wax wala tufaadu man raaytu fa yuxriju laa ilaha illallah kon képp koo xam ne nii da nga naan laa ilaha illallah rek na nga xam ne bis bi sa bés maanaam na nga xam ne yow da nga cee bokk ndaxte julit ñëpp benn bakkan lañ benn ay mbokk lañ parce que innamal mu'minuna ixwa julit ñëpp ay mbokk lañ kon képp koo xam ne nii da ngaa gis ne mi ngi aji màkka di julli di woor weeru koor di dem eh, di joxe azaka rek na la leer ne sa mbokk la rawatina nag nga dégg mu ne laa ilaha illallah ndaxte la ilaha illallah moom foo ko déggee teg ci muhammad rasulullah rek jàppal ne sa mbokkangoo kon bu ko defum noonu loolu la Serigne Touba wax kon murid Tidiane Xaadir laa yéen yéen ñëpp bés bi seen bés la na ngeen ci ñëw bisimilah ñu daal di def ñaan يا رحيم ربي بما يسر وأسهل قد فجاه بجاه أفضل من لله قد لجاه حمد لرب كريم لا شريك له وصدر اليوم نورا ساترا ملها محمد صلوات الله في عبد عليه في اسمه كل به كلها أرضه إلا الذي أمد موائبه لجملة الخلق ما يختار من برها ناجيته جل أهواما وكرما تكرم عاد وكل من لخي البرا رحمن عبلي جميع الخلق رحمة من يغني عن السر من قرآنهم خرا أد أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدها يا مالك الملك يا من جل عن خواد irham jami alwara ya haden rada ma hawtama wa qalbu min daran bijaahi afdal man lillahi xalaja subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ndimbal yermande saari batin barka Seexul Xadim barka Seex Masamba Jóob Samb